Thank you. asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal si toppa bi ngeen a seetaan ah, toppa Gambian Talents TV di leen jaajëfal tamit si seetaan bi ngeen a seetaan Gambian Talents TV ah, tey nag dañ ñëw ba fii Sukuta fi nga xamante ne mooy Sukuta Sanchaba ah, seeti ki nga xamante ne nii moom mu ngi jànkuwanteeg feebar bi nga xamante ne ni sonal na ko trop ñu gën koo xamee si Awa Ceesay moom Awa Ceesay nag feebar bi nii yaaga na koo daaneel gars yi dem neen fu nekk pour uti treatment pour ñu faj ko waaye fu gars yi rek duñ dee mun a am ku ko faj faj bi nga xamante ne nii mun naa wér ah, ba tey nak mom lay ñëw fii nii waxtaan ak ah, awa ki nga xamante awa Cissé mu ngi am ah, ñaar fukki at ak ñaar li nga xamante ne 22 years nga xamante ne ndaw la fii si Gambia bi moom la feebar bi nii jàpp moom lañ ñëw nag seeti te nag mu ngi doon atteindre foofu nga xamante ne moom Sukuta te awa nak si gestu bu ndaw buñ def tax mu school mu nekk li nga xamante ne nii lu daw yaram la gannaaw bu yaayam génnee àdduna loxo la nekk bi nga ni nijaayam ak magami ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoo ñooy ci si ñom ñoko ñoom nekk di jappalé ba tay euh, ñom family bobu non ñom ñoy sàkku nimbal ci yéen ñi nga xamantene ni yéen a ngi ah, duñ def dara nak lu tok waxtaan ak ñi nga xamantene ñom ñoy family member bi indil leen ki nga xamantene ni mom moy awa mom la ah, febar bi dal di ah, daaneel jërë ngeen jëf ko rahmatullah baadiŋolon tena kutenke moolu siise awala broda ake ansemba awala kulo kono awa absolutement kelolo bakele nya safsono binin sama fongo betala bakele yo sala kuoba ñamin santenten ababa tande kanne sako sayen sumya ko masta awa sasa ko mas wato min ani ñi sasa wulutale uh, folo folo dun ka jaral ni jine silo lo sitan silo bus ngame ko wala bala no ngo jaral fameta o man nano bondi no bar bi ko masta ka boy doron uh, ala ger 7 karam bola tin na ida karam bun fon la musatara karam bun to la ko masta ka boy nada fo mbama ko ngani bonde karam bon dog sa man koy momin ka boy karam mun no sa stigma tayes no ya foko jinol bala aba mol ka bala dal so nata nan jelto ayda ha karam mola so bije an sa en ka nga asma dara le ngamir no wol bala nga mo fin silo tale ka asma dara nga jinol sitan fino dara ngani be tala bare nga ngaje ko wo womanta wokno dun don koy ko sa en al nga dalu tan fana nga jejibe maybe asakeno wofan bakulan jere sa en tala loptan nga jibe wona ra fonyo ko uh, alhat musule province don ala niji la jele space don so foya operate je je karanyo wala surgical correction sai mbawoto tan na kan tan foy na ta fana e medical board report dada medical board report wala mi docteur jamal la kasi ya jibe ni mine bala yala ko le check inata ya je ko hansen wo problem kilon bala senera fonyo ko kayto fele asita ale makro nyinari kamol je milisa makro no ka sam bantala pour kala life rescue wonin bitema ay sanjo sile nga mol jamala je nga bundal konkonde dol bi je wol ma kono bare e fendindi na pour ngala fonka dol bi je wolen la hidi han sai meje folo pran sai ba makoro ni la momo yalan ko isa fen kenon hani dalas keme ni sa lano je us makoro lo man jutu fenna isa mi ngomin kino je doron a bitara bakele antul man jutu fenna miliyan ko bijanga wala banko e bantala isa mi ngomin keno je wala nitima keno sang isa futande mo la miliyalan ko isa fanke la komi sa fellano je lan pour kala pour ka balo tankandi docteur le min fo ni nyala bon wala ndiko sa sa min ata fudu no la sa sala because ati so man betia ni nga futa na kon mata sikino ate wala na dingo e be fo e ni wala wolon kurmi yalan ko dal ayam batandi bake kurani na kodo because mo na na menta na ke ba ka pura fana futu ana ni futu da level pure dion soto sai ita dion soto la ni so man betia ana ta don so man betia doctor tan den ko ata futu no la ning ama nyin ku da nyin jara okay uh, uh, mbadin suralo uh, suma ol be sedut waye lima wax bi moy ki sumara ki awa sumara kala limu ñaani e, moy ndimbal parce que dañu demone l'hôpital ci biir gambia waaye ba léegi lu ñu wax mooy dafa am feebar boo xam ne dafa dem bitim réew pour ci faj fu mu nekk nii ñun baadoole lañ ñu am dara pour yóbbu ko fale fu mu nekk nii ñu ngi ñaan askan wi ko na képp koo xam ne am dara ni mu xonte dasi sax baax naa ñun dimbala ñu uti li ngeen am rek ngeen yokka suñu loxo rek ñu seet naka laa pour ñu mun a yóbbu ko ci bitim réew mi pour ñu uti ci faj yi ah, ma olof yi seetut waaye dama bëgg a wax bari si olof waaye Okay, uh, we are still talking about our issue. Uh, our presently she really need help, uh, an urgent case for that matter, because it's been a while since uh, last year November, 22nd uh, November, she was an issue a medical board report indicating that she need an overseas treatment. Since then we have been searching, knocking doors, but yet uh, none of the door was open for us but we meet many people individually and as a group. But still now many people make a promise and we are still knocking doors. What our need recently is urgent uh, surgical correction to oversee treatment. Uh, according to medical personnel, they said uh, she had a rheumatic heart disease, which was diagnosed uh, last year, 2017, uh, 2016. 2017, she was diagnosed again with ventricular congenital uh, septic defect which indicate that the heart muscles has a problem. There is no overflow to the heart, and the muscle has a space which they need to correct it. If not, uh, Nawa will be falling always. And according to uh, herself, when she eats certain kind of food, it's difficult for her to breathe. Meaning she only eats special food, not like palm oil and these oily things that people normally cook in Gambia. I want special food uh, to, to survive we are asking uh, people who can lend a hand to see that Nawa survive or you know her life is rescued. Uh, we talked to many people, as I said, but still now we are extending our information. We are extending the gesture to people abroad to see as an individual or group of individuals who can do something to save Awa's life. According to doctors, the last report says if Awas uh, doesn't make a surgical correction, uh, she, she cannot get married. If she get married, she will die or she and the fetus will die because the muscle cannot uh, sustain her during uh, labor and pregnancy. So this is the most thing that is worrying us. So people who are hearing this thing, uh, we really need your support. Uh, President Lawa cannot go without support, and the family members are not in the hand to support her. That's why uh, we're thanking Gambian Talented Show who came here to take our eh, video to show to the world that our need urgent help. And as I told you, our really need an urgent help uh, for overseas treatment because right now we are in cold season. Uh, in cold season, mostly she's always having troubles with breathing, difficulty walking long distance, uh, problem eating certain kind of food. Right now, she's on medication every day on medication. If not, she can't do anything, and the family is not well off to take our condition because right now, as time goes in Gambia, people are thinking about you know, survival, not to talk about taking somebody abroad for opposite treatment. Our needs special food to survive, and she's on medication, everyday medication, from herbs to this uh, uh, uh, European medication. So I'm still urging those who are listening or those who are hearing this thing to do something to save life. The life you save might be your own. man maay nijaayam suma mag moo ko jur soo mu ngi suñ kër bi fii nekkut kër baayam kër nijaayam la nekk waaye depuis feebar bi commencé dal fekka mu ngi jàng ekool mu ngi grade six opana ay eh, romba na grade mu dem six foofu la ko commencé su demee si school bi daf dee daani school bi alors que ñun ñoo dee jël ko foofu indi soolu loolu daf ko yàgga yàgga yàgga ba léegi ñun gis ne kii jàngam bi du a dem mu bàyyi school bi soo kii mooy magam Modou Ceesay moo ko dimbal torop yobu ko lopitaan lopitaan bu nekk yóbbu na ko foofu soo luñ ko woonee ñu ne ko kii feebaram bi ñun duñ ko mun a faj soo amee pexe nga yobu nga génnee ci dëkk bi nga dem bitim réew pour faj ko soo moom moo ñëw wax ma loolu mu ne dina tray waxal yëgal nit yi pour ñu utal dimbal pour suñu amee xaalis yobu ko soo ba léegi kii mu ngi tray dëgga dëgga mooy magam bi soo dafa wax nit yu bari ku xam dara mu indi xaalis bi ñu dajale halis bi da salis gis xaalis su moté ñu yóbbu ko fay waaye dimbal bi dafa des dafa des trop te ba léegi feebar bi mu geten ko So trop so ñun ñu ngi ñaan askan dimbal bi fu nekk si Gambia fi, si bitim rew fu nekk suñu amé dimbal dina ba trop because léegi si kër fi. léegi si kër bi fii kii lekkam bi moo ko dee tooga si boppam because am na yeneen lekkay du ko mun a lekka du dee lekka diw tiir du dee lekka diw because su lekkee boobu da nga gis yeneen saay daf dee daanu dena bi daf dee socc mu daanu soo ñu ngi commencé dimbal Gambia si biir Gambia fii ministry of health ak government ñu dimbal ñu légui bi ko daf ko sonal torop torop torop torop torop so ma nge gërëm Gambia Talent Television yeen ngeen tew fi ma ngi leen gërëm torop torop pour ngeen ñëw woné suñu suñu rakka suñu dom pour woné askan pour ñu gis ko ñu xamné ki dafa pewar because dañu laccé dimbal So lolu sen ñëw bi dañu contane lolu trop trop trop trop soo Gambia fii léegi ni waxtu amut pour dimbal kii soo ñu ngi yokka suñ ñaan bi Ministry of Health Fatou Touré boo ñu gis fii nga xam ne ñun dimbale dimbal lañ laajte ak nguur bi président Adama Barrow ngeen yaram ñu ngeen xam ne ñun suñ doomi nijaay bi dafa laajte dimbal so man suma wax bi <laughs> foofu la em ana ngeen laaj ma ma yokka yeneen wax yi ah, loo wax fii am na solo trop yaa ngi ñaan ndimbal ak mhm. ñeneen yi mhm. ah, wax nga ne fi toll nii si kër nijaayam la nekk waaw ah, feebar baa tax mu jógee kër foofu ñëw kër nijaayam wala non nekkul feebar bi because depuis mu nekk xale bi la dëkk si kër bi mhm. so ñun ñoo ko yar fii ñun ñoo ko dugal school bi magam bi moo ko dimbal trop ñun ñun kay ñun koo dimbal pour dunda waaye magam bi moo dee fay school bi moo dee fay lonj bi mu demi school bi ñun kay dafa dëkk ak ñun bu yàgga nekkul si kër papaam bi fii la dëkk moom mu ngi Sukuta secondary school fii dafa xama jeexut school bi nag dafa ah, foog grade grade seven grade seven la am because janga bi du mun dem su demee fofu commencé janga dafa daanu ci ci biir classroom da nga gis du janga so mota ñu yobu ko di fajj du mun dem ci school bi so faj-faj janga bi du munut dem so mota janga bi loolu loolu kay xalaatuñ pour mu faj ñun loolu la ñu xalaat ñun suñ boppa sa yeneen yi ñu ngi dajale xaalis ba léegi xaalis bi ñu ngi dajale waaye motut lu des dafa bari dafa bari torop soo moo tax ñu ngi yokka ndimbal bi si biir Gambia fii ak bitim réew lu waay am loo mun a joxe rek pour ñu dajale ko su motee ñu yóbbu ko bitim réew ñu faj ko because docteur yi ñu ne bitim réew rek lañ ko mën a faj. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu mbooloo mi. man tur bi faat caam la kii sama rak la Awa Cissé ñoo bokk ndey faj nañ ko daal faj bi comme kii lu mu wax rek dañ ko faj ba sonn affaire bi mënul weer ba yaay bi de day bàyyi ko fii mu bàyyi ñu fii ñun te ñun amuñu doole papam amul doole daa màgget ñun mi des fii amuñu doole tiraay nañ ko nag ba sonn mënul dem léegi ndimbal la ñuy ñaan yàlla te te yàlla tax di nii lañ di ñaani ndimbal te te yàlla tax ku mun a jàppale ñu daal nga jàppale ñu te yàlla tax ñu ngi ñaal jàpp di ndimbale dégg nga sama wax bi daal foofu la yem. Ah, man sama wax bi mënul sori. <laughs> yow mi nga xamante ne mën nga ndax mën nga ñëw wax ah, laay feebar bi kenn la ko door di daaneel. yàgg na ko daal bu mu nekkee xale bu xale bu jigéen bu ndaw xaw ma nag fii parce que fekk man maa ngi sey Sénégal man Sénégal laa sey damaa ñëw fekk affaire bi commencé ko di ko daaneel waaw mun ma am temps la ko daaneel nag ñu di des bi ñoo ko mun a am temps la ko daaneel. wante man damay dem di ñëw ma fekk mu koy daaneel dégg man Sénégal laay seey moo tax mun ma wax ne tàng la ko daaneel waaw. soo yow mi nga xamante ne magam nga boo boo ñëwee ba nga xam ne ne ah, kii feebar feebar nekk di jànkuwanteel ban yëg-yëg nga am. Hmm? man sax yóbbu naa ko ba fee Sénégal pour faj ko foofu wante faj naa ko ba sonn mënul kii mënul dem waaw faj naa ko ba sonn mënul dem. assalamu aleykum warahmatullah uh, ndetomo ibrahima kamaralti um, awa munna sister na cousin sister la uh, coming ala broda ya foñami sasañing ana wulutale uh, num falan kabe ana wuluta jaralol ketale a manke coming wulula sita nga ñakasala mulu wulutale kala ku kala kata loptanol to ka ka, ka lon sasamin bala loptan jama wala mata <clears throat> amanna lon sasañi min bala exactly sen kabirin multata arvitie min kiraɗo bati baati wonataji a jeko sisoñin walan promo so kabirin o sisi promo janni aba aba lonno fala loptan jama kabirin eh, aba akata karamuto aya aya bali karamudo tala natata karamudo karamu akatamala kata skulol natata je jana kafta karamudo aka si jamala ke suukon silo abe ka futa no karamundo na tata domon na tamana domon neng ay si ay fonyon ding na e, na bar na fonyon di batanye mbota la ay e tama kote na tamana domon ay si ay fonyon ding so akay wati jamata janna ka futa karamundo sai nyata je komen sai bawo amanjara nata bonde karamundo obe kola anara akotoma min kada e mawlo sisede ani wo kata loptano to kala ka sasa ka sasa nyin jibe so kabe tata arbitre ya ko problem bala andung sai ata jaranola gambe so kabri yo fo fanan amansi a mansi n ka ko i buloo e ko beŋ ye ko doo soto kaa problème jama mol ida government people aniŋ private people miŋ ye ko philanthropist a na ko kodoo be i bulu ka ka maakoyi ka finde band n ka mo moo jamal visit ka la ka la proboo ñiŋ fo ye wo ka e buloo fay baw doolu ka a ne ko ta abe finance no la pour ka finde banda kata jarulo je ɓawo ɗon kaje ko expensive ta ita be kenon modol ka yeminno e koke yeminno e koke yéen a ah, dégg dina nettali si làmmiñi borom dégg ngeen magam lu mu wax nijaayam lu mu wax ak ki nga xamante ne ni moom tamit ah, cousin brodaam la lu mu wax ah, dégg ngeen nit ñi tamit lu ñu wax si awa ne feebar bi nekk na loo xamante ne ni sonal na ko trop gannaaw bu gaay demee arbitre Euh, fële Royal Victoria Teaching Hospital ñu gën koo xamee léegi si Edward Francis Small Teaching Hospital gannaaw gaay bu ñu demee in leen diagnose li nga xamante ne mooy feebari xol bi nga xamante ne euh, moom nag wax ne in la leen gaay euh, jox medical report bi nga xamante nii ne awa soxla na overseas treatment si li nga xamante nii gaay wax neen ko mu li nga xamante lu am solo la ba tey it bi di saaku ndimbal dégg ngeen si waxi ak ñëpp ñi nga xam képp ki nga xamante ne yaa ngi am euh, li nga xamante ne mun a mun nga leen see dimbale nga dimbale leen num gaawee ah, ah, ne ñoom ñooy nguur gi ak ñoom ñooy ah, que yi ngeen a wax women empowerment jàppale leen ki nga xamante ne ni young young la fii si Gambia bi mu ngi 22 years ba pare soxla na ndimbal nu mu gën a gaawee noonu ko gën a soxlayee gannaaw famille bi seen loxo jotut seen gannaaw gars yi ñu try ñu ngi côté côté côté dajale li nga xamante ne loolu leen am ah, ñoom nag comme nuñ ko waxee xeebuñ dara lu waaye am rek mun ngaa indi sànni sa loxo ah, pour jàppale ki nga xamante ne ah, a a a ni mooy bakkenam wala mu ñàkkal nga xamante ne ni mooy bakkeni doomam parce on niñ ko diagnosé masul sami mënuñoo jàppal nga xamante ne ni mooy pregnancy togle sof dugg si néegi sëy ba nag di leen xamal ne xale bu jigéen bi jafe-jafe yi la nekk di jànkuwanteel fii si Sukuta mu leen a ñaan dimbal ba tey nag ku leen bëgg a dimbale mun nga leen a call si 70 60 306 7060 306 mun nga leen a call si nomba boobu wala nga call leen si 315 1783 315 1783 ba tey it mun nga leen a call si nomba boobu mun nga call si seen commune line bi si 622 5382 622 5382 mun nga na naa call si nomba yi nii uh, ñu ñëpp ñu jàppalante ñu sànni wante loxo jàppale ki nga xamante ne nii moom mooy Awa te soxla na uh, traitement comme nu mu gaawee uh, parce que lii nekk na loo xamante ne ni daf koo daf koo di stop torop torop nga xamante ne ni um, am na yenn lekk yoo xam ne sax mun koo lekk te Gambia fii nii koo gis nekku di lekk diw diwlin wala diwtir kon nag sa feebar nekk na loo xamante ne ni sonal na la te yenn lekk yaa ngi soo ko lekkee comme niñ ko déggee si gars yi awa du dee mën a dox long distance su ko doxee daf ko dee sonal loolu yëpp mu nekk euh, feebar yoo xamante ne nii euh, daf dee sonal doomi aadama njaay torop parce que soo toogee ba mun loo dox fu sori wala mun loo lekka yenn lekkay dina la distop torop kon te feebar boobu noonu nekkaan feebar boo xamante ne feebar bu métti la ñuy ñaan nag képp ku nga xamante ne bëgg ngaa dimbale rek nga xool si nomba yooyu noonu ma ma jox leen ñu saane wante loxo ñu dimbale ki nga xamante ne moom mooy Awa Cissé moom mu am nag 22 years Gambien fii ah, nekk na xale bu ndaw bi nga xamante ne soxla na ndimbal jërë ngeen jëf. you.